ca Afghanistan jamono jile tàng na lool euh, foofe ca réew ma ndax coup d'état bi nga xam ni moom moo fa amoon indi na nag ay jëya indi ay pëccoxook réeroo ba ñu bari ñàkk ci seen bakkan ñi am ci ay gaañu gaañu commencé xëccoo aéroport yi ku ci nekk rek yaa ngi fas yéene rawale sa bopp ndax euh, li fa xew jamono jile moom moo yëngal euh, li di àdduna bi ku ci nekk yaa ngi ci ku ci ci addu euh, ngir ak dal ak jàmm des ñëwaat foofee ca Afghanistan képp koo xam ni rek étranger nga boo xam ne nga nekkoon ca dëkk boobee jamono jile ñu ngi fas yéene daw daal di génn dellu ci seeni dëkk ba ak dal daal di amaat foofee ca Afghanistan Afghanistan nag eh, jamono jile tar na lool eh, képp koo xam ne rek eh, sa doomu réew ma nga fa yónnee nga li nga xam ne moom mooy sa avion ngir jëli leen foofee ca Afghanistan ndax dëkk bi jamono jile bu leen gisee ngeex ngeen xam ni dafa am ay ay jëye am ay xook lii di réero foofee ca Afghanistan gis ngeen sax ba ci médecin yaa ngi yëkkati seen kàddu ci yéeti jàpp ndax leen ci hôpital yi sax fonctionné tul lii di lu ñu fajoo wala garab sax amul foofee ndax ne dëkk bi yëngoo jamono jilee ñoom waa Afghanistan yëpp dañoo daal di eh, commencé tabax nag seen eh, réew commencé def seen gouvernement bu bees ngir coup bi nga xam ni am na foofee ca Afghanistan képp koo xam ne rek dëkkoo fa ñoom da lay daal di génn dëkk bi ndax ñoom dañoo bëgg a tabaxaat seen dëkk yëkkati fa nag. ab loi bu bees loi bi nag euh, képp koo xam ne rek euh, sàcc nga fa nañ dagg lii di sa loxo boo fa faatee bakkan ñoom dañuy taxaw ngir fàttali di loi boo xam dañ ko faa yëkkati foofee ca Afghanistan gis ngeen jamono ji ni ñuy xëccoo li nga xam ne moom mooy euh, avion yi bu bu avion wàccee ci aéroport bi boo xante beeg njëkkante bi métti ndax ku ci nekk yaa ngi fas yéene rawale sa bakkan ndax jamono ji Afghanistan tar lool ndax coup bi nga xam ni euh, am na fa ci ñaari fan yi weesu rek moom ba mu yëngal lii di waa Afghanistan ku ci nekk nag yaa ngi yee di ca yàbbi ci àdduna bi ngir rek ak dal ak jàmm daal fa desuwaat ba ku ci nekk rek delluwaat ca la nga nekkoon.